parce que on voit que l' équipe Cameroun en 2017 dem ba dem. sant instant bi ñu ngi mu ngi baax ah même si gisuñ ci lu bari ndax signal bi dawoon mais liñ jot a gis dalagum na xel de te ne yàlla. Euh, jeu bi Sénégal euh, proposé de. waaye jeu bi baax na de mais li ñuy dem ci latéral yi dafa bari maa ngi koy wax keroog match contre Niger bi li dugg dem ci excentré yi dafa bari quoi dañuy dem te nii. def ci axe bi milieu bu jëlee na def passe ba en profondeur boo xam ne boo ko lee rek da nekk si surface de réparation match bi loolu moo ko mën a gën je pense mais euh, loolu mooy suñu fi mu toll nii quoi attaquant de ko xaw ma li ma la wax la rek maanaam jeu bi moo amul progressivité boo xam ne day nekk si biir axe bi maam boo ko defee si excentré yi excentré yi ñooy gën a fubal ko attaquant point attaquant il faut nga ñam pour xool Habib Diallo Jackson. c' est animation boobu duñ ko mën a am de plus que Sadio Mané mi ngi ci côté gauche. waaw mais loolu parce que Sadio Mané day jël day joxaat milieu yi milieu dañuy jël joxaat ko wala ñuy jox ay Crépin wala Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr indi wut lu bari maa ngi moom yem sama toomaa la mais indi dara mais nañ milieu yi bu jëlee parfois dangay dagg ligne bi ligne milieu gami gamien bi dañ koy dagg def passe en profondeur nga xam ne attaquant bi dans day jàkkaarloo góol bi bu jàkkaarloo góol bi nag reste à moom attaquant bi bi la ñuy def Lamine Camara excellent excellent mu ngi def li ñu koy doyee ndax xale la xale moom lii la ñuy doyee ci moom xeex bu mag ñi perte nga dem dimbali leen boo jàppee jox leen daw laaj ni mu koy defee nii moom tarkal carton rouge c'est mérité c'est vraiment mérité parce que fekk football bi ba pare di def loolu anti jeu la zone nañ ko bi ñu ko zonee yéenewuñu leen ko mais c'est mérité franchement. waaw man ngay xaar euh, deuxième temps nañ dolli maam nañ dolli champion d'Afrique lañ nañ dolli nañ dugal lu bari gars yi bàyyi ñu xel ay 1-0 baax na mais nañ dolli daal te am naa yaakaar ne deuxième mi-temps bi dina am beneen deuxième wala troisième bi jaajëf jaajëf. gars ñu def maa bu baax gisoo ñu nii. gisee bi mu. Ah, moom macha allah dëgg yàlla kontaan nañ trop bi ñaan yàlla nag. après mi-temps ñu daal di delluwaat rek def ba mu baax. mais eh, kan ma kan ma si jour. Ah, Sadio Mané man moom rek. Thierry ah. moom rek laay topp. <laughs> mais Sénégal jeu bi mu doy na la. waaw nii nii doy na moom dañuy dañ leen wax ñu gën a dolliwaat effort rek mooy loolu mais dina baax j'espère nag la may ñu ndam li ñu am comme ni ñu amoon daaw rek mu gën a neex. bi ñaata ngay ñaata nga ñaar. bii tay bi non bii moom gis naa fi deux de wala quatre. quatre bëri na eh, quatre ah. mais mais mais Gambie suñuy xarit lañ suñuy mbokk lañ quatre. waaw c'est la même famille boo nee Gambie ne Sénégal ay mbokk lañ xam nga mais. teewul tamit mën nañ football daal nañu yàlla may ndam rek incha allah. voilà Fallou jël ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci fan zone fii ci corniche bi donc voilà ñuy euh, wane li nga xamante ni moom moo fi am donc fii naaj bi xaw na tàng trop mais n'empêche que euh, étudiants yi ñu bëre si ñoom donc voilà génn nañ euh, di supporter nga xamante ni moom mooy seen seen équipe di équipe nationale bi nga xamante ni voilà mi ngi tàng. trop sax. sàmbare yaa ngi xëpp ndox sa bopp. waaw ñu eh, mais j'espère qu'on aura la victoire rek. incha allah. situation nga am ci premier mi-temps. Eh, on a bien joué ba na li ñu joué baax na ak rouge bi nii dina gën a faciliter affaire yi rek espérons qu'on va gagner rek incha allah. je pense que rouge bi c'est logique. bien sûr c'est logique amul woon droit def ko noonu en plus perte na bal ba pare c'était pas la peine en tout cas c'est bon pour nous daal. final ñaata nga gis. 3-0. bii la kii. ah bii la kii. Sadio Mané Iliman espérons. mais mais mais mais milieu terrain bi boo xoolee Gana nekk fa Pape Matar Sarr nekk fa donc euh, euh, Boubacar Camara ak Pape Gueye li ñu proposé ndax convaincre na la. oui bien sûr li parce que kenn si ñoom sax moo dugal muy Pape Gueye kon cela veut dire que ñu ngi gérer bien en plus c'est le futur espérons qu'ils vont bien gérer rek. taxawaay bi baax bien sûr. baax na kay sinon on n'aurait pas une un but la place de Jackson tu penses que bon. oui c'est bien parce que euh, Habib Diallo moo ko ëpp expérience Jackson sa première CAN. il faut qu'il l'intègre facilement et un peu un peu rek ça va bien se passer. ok merci voilà. Euh, Mohamed ñu ñu génn ñu ñu génn jéem a jéem a doxantu jéem a jël réaction yi nga xamante ni moom continuer euh, euh, papa jël euh, réaction yi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais yi ak gars yi ban gis-gis ba ñu am ci match bi donc gars yi ban appréciation la ñu bi donc voilà gars toog nañ sonn nañ papa ñu ñëw jege gars yi xool mais grand maa lay nuyu. maa lay nuyu. yaa ngi si jàpp ah, waaw match bi vraiment premier mi-temps mën nañu wax que ne voilà ça a été bien déroulé quoi. parce que gis nañ que ne gars ñoo ngi def fula si la ñuy def quoi. demi temps pour yow c'est bon. oui oui c'est bon c'est bon dans l'ensemble c'est nga xamante ni ñoom ñooy euh, seetaan match bi donc euh, borom pom maa gisee ma la xiib wala la naaju ma. damaa sant yow loo sant. Ndiaye. sama kii nga sama doom baa nga yaa ngi may njóobeen ni yaa ngi en direct wàññil xom bi yaa ngi pom bi yaa ngi en bi dama son taxif mais alors naka nga gisee match bi donc déjà euh, heure bi ñu koy seetaan nii métti na naaj bi tàng na donc voilà ah, match bi moom macha allah ça débute bien comme ñooy dóor rek hmm. rek ça va ñu xaar deuxième mi-temps bi Aliou rek c'est bon pour yow man moom mbirum classement xaw ma si dara <laughs> mais lu mu teg rek noonu la. Ah, waaw loolu la rek nañ gañ. mais am nañu ruus. ah waaw ñu leen gañ ñu ne Sénégal dañ ñëw ruus. ah si ñoom dara parce que sama dëkk la. waaw moo tax mooy loolu. mais nañ door rek ñun. final bi ñaata. Hmm? score final bi ñaata. 2 rek baax na. ah. ah? Euh, tudd. non baax na. ay yërëm Gambie. non baax na 2-0 baax na. dem alors yam jël gaay grand maa lay ziar waaw maa lay ziar mais match bi dañu seetaan deuxième mi-temps bi daw tuuti signal bi dagg loolu euh, noo ko gisee et puis xam nga ak problème yi am chaque jour ñu ne RDC mooy diffusé mooy diffusé en français ah bon moi je dirais que bon malheureusement je tiens à m'excuser pour le comment dirais le léger manque de temps qu'on a à propos, comment dirais-je, du coupure, du coupure du signal qu'on a eu à entendre tout à l'heure. Mais à du match, je pense que le match s'est bien passé. On a été bien servi par la RTS et par, euh, comment dirais avec ce fan zone pour, comment dirais pour, regrouper tout. La coupure voilà, la coupure, la coupure, c'est un peu désolant parce que c'était imprévu. Mais bon, euh, c'est quelque chose, qui n'a pas été voulu. Mais malheureusement, je pense qu'ils ont suggéré, ils ont suggéré, et que par la suite, on a pu trouver une solution, une alternative, et qu'on on a pu s'en sortir. Mais on espère que par la suite, que ça ne va plus reproduire. Voilà, en attendant, on espère que ça ne va plus reproduire, et qu'on va s'améliorer entre, temps, quoi. Je pense. Donc, merci, voilà euh, ñu ngi léegi ba léegi ci fan zone bi mais bon naturellement dinañ laaj gars yi coupure coupure bi naka lañ ko gisee ndax match bi bu ñu demee deuxième mi-temps presque environ vingt minutes euh, match bi dafa courant bi dafa kii grand maa lay ziar. waaw jërëjëf ziar. maa lay ziar. jërëjëf ziar gars euh, noo gisee match. waaw neex ah. appliqué rek dóor bu dee match bi deuxième mu jeex quoi. incha baax na ko. baax incha allah amul benn problème kontaan nañu mais mais mais coupure bi am euh, naka nga ko gisee ñu seetaan moom yaa ko. mais c'est partout donc euh, on n'a pas blâmé quelqu'un quoi erreur la peut-être erreur technique mais on assume mais affaire yi ñëwaat ñu ngi enjoy na Sénégal rek gagné quoi. parce que yaakaar naa deuxième mi bi coupure du amaat. ah mais bu amee tamit peut kii la rek c'est normal ils ont dit que c'est universel donc nekkul ñoom seen faute quoi faute c'est partout donc y a pas de problème pour ça merci. mais Gambie am Ah, mais il le mérite. Le gars est con. Il n'a pas joué avec le ballon. Quoi. Il a cherché, il l'a eu. Donc, mooy loolu quoi. voilà. lépp ba affaire yooyu noonu xaw ma te xaw ma trente mille la ñu joué rek ba affaire yi kale du yoon de xaw ma problème si kale di wane ko dépassé di nekk suñu niveau ne woo départ yi moo la HLM la ñuy jóge bàyyi affaire bi ñu ñëw ba fii ñu xaaral ñu ñëw ba mun na. mais bi ngeen ñëwee seen kër foofu dafa coupé woon. dafa coupé bi la ngeen ñëwee fii mu coupé. mun nga jàpp ne c'est universel. waaw c'est universel que HLM la ñuy jógee taal suñu mën ñëw ba fii tamit ñu fekkaat loolu noonu du yoon moom. HLM war na di war nañu dépassé fii quoi Sénégal mooy loolu noonu xaw ma fan la.